de mu am mucc ay boo xam ne tey victime de violence bi nañ ko jàppale tey ba mu tegu ci yoon loolu moo ñu indi tey ci pour ñu wax leen ne synergie lañ bëgg ñu jàppal ndoo ñoom ñëpp euh, bu cas de violence amee duñ wax diw moom moom cas bi diw moom moom cas bi diw moom moom cas bi ñoom ñëpp dañuy liggéeyal Kaolack Euh, bu viol amee ñu taxaw ci ñoom ñëpp jàppane ba yëf yi yemm ñu bari dañ la naan ñun xamuñ ne sax loi bi am na te loi bi voté nañ ko depuis 2020 def na 3 ans di jëm ci 4 ans loolu nag day wane ne dañoo war a gën a dugg ci communauté yi gën a dugg ci ñoom wax leen ne loi bi existé na Euh, pour mon nous nous avons fait des formation avec l'UVF euh, avec euh, les étudiants de l'université virtuelle de Kaolack Nous avons fait nous loi existe sensibiliser nous fait. régions boutique de droit kon nous lois, des statistiques cas de sexuelle toujours yeneen yi nga xam ne amul boutique de droit am na ay numéro vert yoo xam ne dañ ciy oote di joxe chaque jour ñu ote ne am nañu ay victimes de viol yu ci am